بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجغت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها وعودت ميل قلبي للهديات وقاطبتني بما يدعو لغذبتها وأزغرت صدق وعدي بالرقيبات تورا تديني وتوليني دوائس إلهي من ميلي لغير الرضا ومن صدودي عما صن أو فرضا بسم الإله الذي القرآن قد نزلا منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد برائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi sant suñu borom tabaraka wa taala ni mu yellee ci jëmmam ji te as njaamam lottu ci matale ko lool di julli tey sëlmal ci sangum ñaari way ndi ji bopp yi sayidul kawnayni wattaqalayni walfariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci Serigne Touba Xaadimu Rasul di leen nuyu nuyoo bi nga xam ne moom la ñu yàlla boole muy nuyoob lislaam bi nga xam ne moo tàmbali ci jàmm te jeexee ci barke waaye nuyoo bi nga xam ne ëllëg bu ñu demee aljanna moom la ñuy nuyoo mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu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 nuyoo boobu ak ziyaara boobu it moom la ñuy yóbbu Léona Niassène fekk fa Baye seex Tidiane Niass ñaanal ko yàgg ak wér ak yeggale incha allahu taala ba mu mottali mboolem ay naalam yow boobu ak ziyaara boobu it moom la ñuy demee Canaba moom la ñuy demee Ndiassane fekk fa Cheikh Bekay waaye moom la ñuy demee Canaba fekk fa Baye Assane Seck waaye moom la ñuy demee euh, Kër Baye Thierno Bachir taal mi nga xam ne moo am ci maam Cheikh Omar Fouti waaye moom la ñuy yóbbu Fass Touré fekk fa suñu wayjur Baye Abdoulaye Assis Touré di ko ñaanal yàlla sàmm ko. nu yóbbu ba ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu ci mboolem buntu kër diine yëpp moom la ñuy jox mboolem umma islami bi yëpp moom la ñuy jox mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñooy topp seen télé réew mi TV waaye man na topp it seen rajo réew mi FM 97.5 ci rajo bi ci waxtu ci waxtu wi nga xam ne moom la émission bi di daw euh, seen émission keppaaru mag ñi niñ ko baaxoo defee suñu fi teewee di fàttaliku kenn ci suñu mag ñi mag ñi nag mooy ñi nga xam ne la yàlla yónni woon yónni bi alayhi salaatu wasalaam ñoom la ko yàlla jaarale ci ñoom ba ñun ñu jot ci ndax alayhi salaatu wasalaam saxaaba ya la jàngaloon saxaaba yi jàngal taabia yi taabia jàngal taabia taabia yi ba yàlla dogal mu agsi ci suñuy maam ñun dañoo juddu rek doon ay jullit li ko waral mooy que ne suñuy maam mujjeewuñ puso bi mu réer kon ñooñu mag ñooñu nga xam ne ñoom ñooñu defal loolu seen émission keppaaru mag ñi mag ñooñu lay nafaraat seeni dund waaye nafaraat seen i jàngal waaye nafaraat euh, seen i jaar-jaar looloo tax seen émission keppaaru mag ñi tey indiwaat kenn ci suñu mag ñooñu muy sëriñ moor Sànqe muy sëriñ Mor Sànqe sëriñ Mor Anta Sali Sànqe muy sëriñ Mor Anta Sali Sànqe kon dèjà rek déggee nañ ci ne sëñ Mbàkke Mor Anta Sali dañ ko tuddee wayjur Cheikhul Khadim waaye liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam incha allahu taala moom lañ fas yéenee fàttaliku waaye di ci ànd ak nag kenn ci ay sëtam muy sëriñ Saalih Sànqe sëriñ Saalihu Sànqe di. Euh, kenn ci ay sëtam waaye jiite it commission culturelle bi nga xam ne moo aju ci daaira sëti Serigne Mor sànq yi ngir fàttaliku guñ koy bëgg a fàttaliku incha allahu taala ci Touba ci le 2 octobre bi ñëw incha allah le 3 octobre incha allahu taala foofu ci Touba. xam naa damay dalal sama gan Serigne Salih Sànq mu daal di nuyu incha allahu taala ñu daal di dikk ci jaar jaari kan mooy Serigne moor Sànq incha allahu taala Serigne Salih boo nuyoo ba noppi rek ñu daal di door dikk ci kii bi incha allah. jërëjëf ahuzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim eh, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi lay nuyu sëriñ baara di la siyaare di nuyu waa kër gi itam di leen siyaare di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp waaye ngir bañ a guddal rek suñ kilifa diine yi xam nga ne su ñuy nuyoo ci ñoom lañuy ñuy jiital waaye comme jaar nga ci rek yóbbaale nga ñu. Mm-hmm. ñu njëkkanteeg waxtu wi. Mm-hmm. kon mm-hmm. ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xamante ni nii ñoo ñuy copp. di leen jaajëfal bu baax. xam naa dañ koy gàttal foofu rek ngir njëkkanteeg waxtu wi. incha allah jërëjëf Serigne Salih jërëjëf jërëjëf euh, nuyoo bi jot na jotale na xanaa di jaaree ci sa nuyu boobu rek di nuyoo suñu wayjur Serigne Cheikh Mbacke Ismaïl xalifa Mamor Diarra borom Cham di ndokkeel it Serigne Cheikh tedd ci bis yi nga xam ne moom moom la. jublu di nuyu sëñ Cheikh Tedd yi ci bis yi nga xamante ni moom moom la ñuy jublu muy bisu màggaluk sëriñ Baara Xureeja mu war a doon le le premier octobre talaata bi di ñëw fii ci Touba Sam Samuk sëñ Baara Xureeja moom yi ñoo koy ziare bu baax baax di nuyu sëñ Maam Balla it ak mboolem jagut sëñ Baara Xureeja gépp mboolem sëti sëñ Baara Xureeja yëpp daayira subul salaam ñoo ngi leen di jottali suñu nuyoo di nuyu mboolem waa Sam rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn sëriñ Saalih xam naa buñ bëggee xam buñ bëggee xam jàmbaar Euh, dañuy tàmbale ci la yàlla waajale woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi maanaam suñu borom comme bëgg a waajal daf koy ku mu def ci moom ay mbir daf koy waajal hmm. waajal gi nag fa muy tàmbalee mooy da koy waajal ci ay askan ba am ba du am lenn luñ ko mën a xasee léegi nag su ko defee door a bu bu def ci moom jikko yam jik yam def ci moom su jëfee su su ko defee day day jëf ja day mat ndax dañuy xam ne kii kan nii rek la war a mën a mel sëriñ Mor Sànqe yaakaar naa ne wàccaay wu mel noonu la ko sunu borom tabaaraka wa taala waajalee. moom ñan ñooy ay goy juróom ak kañ la ñëw àdduna ak kan lañ ko tuddee lu tax ñu tuddee ko ko ak euh, man man at la incha allahu taala. ok aouzu billahi mina seytaani rajim jërëjëf sëriñ bi kon euh, ñi ngi ñëw rek ci sëriñ Mor Sànqe mhm. di jàmbaar. Mhm. di koo xam ne liggéeyal na yàlla bu baax. Mhm. jaaree ko ci ndigalal sëriñ bi. Mhm. moom nag comme ni nga ko waxee rek comme alxuraan dafa wax ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbi. Mhm. daa cee teg ne wallazi xabusa laa yaxruju illaa nakidaa. kon euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax. suñ borom daf ko waajalal. maanaam ay jaar jaaram. ci wàllu askan. ba moom daf ko daan wax. Mm-hmm. moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. comme tudd nga ko léegi ñu ngi ci weeram. Mm-hmm. te moom comme lu fi lépp lu fi nit am ci lu baax. ndeysaan ci moom maanaam nga ko jëlee. ci barkeem ndeysaan kon kooku itam. maanaam ñi ngi taasu ci barkeem. di ñaan suñ borom. liñ bëgg ci réew mi suñ borom defal ñu ko. amiin bi jeex si waaye moom mëneesu koo ni ci weeram. te moom li ma ko waxee rek képp ku am barke rek moo la ko lu fi waaye am ci lu baax rek. ci moom nga ko jëlee. boo ñëwee ci mboolem mag ñu baax ñi. Mhm. maanaam koo ci jël. Mhm. suñ borom dafa am fu la jaarale. Mhm. ci wàllu askan. ba nga xam ne buñ nee maanaam fii la jaar. dañ naan kon de lim def. maanaam yell na. jaar jaaruwaay yi. li mu def maanaam yellul yell na ndax waajal nañ ko. suñ Mor Sànq nag mel na ne. suñ borom fàttiwu ko ci loolu. Eh, xam naa bala maa ñëw ci loolu sax damay fàttali tuuti rek. ci nettali ay jaar-jaar. li nga xam ne suñ boroom wax nañu ko ci ci li muy jariñ. ndax dafa waxoon ne faq susil xasasa. laallahum yatafakkaruun waaw na leen nettali maanaam ay jaar-jaar. ndax ñu mën a waaru mën a dellu ca suñ boroom kon maanaam nettali ay jaar-jaar moom. li muy jariñ rek mooy maanaam mën a maanaam fàttaliku gaa yu baax yooyu. mën a teg sa tànk fañ tegoon seen tànk. Mm-hmm. loolu rek mooy njëriñ la mais nag amul leneen njëriñ. Mm-hmm. ndax laallahum yatafakkaruun mm-hmm. eh, bi muy wax loolu dafa nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam xisab xistab balham balham ibnu baawura Sëñ Tuubaa mi koy tudd ci maanaam eh, masalik naa de damay bañ kii bi gudd ndax xisa bu gudd la diggante yonent yàlla Muusaa banim maanaam banim maanaam alko mu ne ko nag maanaam faqsusil qasasa laallahum yatafakkaruun laallahum yatafakkaruun waaw beneen bi mu waxaat yonente bi wa kullan naqussu naqussu alayka min ambaa'i rusuli maa nu thabbitu bihi fu'aadak maa nu thabbitu bihi fu'aadak mm-hmm. waaw mm-hmm. kon ñoom ñëpp danaa la nettali seeni xista mm-hmm. waaye nag li muy jariñ mooy yow maanaam coono ya nga xamante ni nii hmm. maanaam dajoon nañ ko ñoom hmm. xamal ni yow mii leen gën da nga daj yu ëpp yu waaw waaye nag hmm. maanaam na nga fexe ba dëgër waaw waaw na nga waajal sa bopp maanaam ci natt yooyu nga xamante ni nii war naa dal ci ci sa kaw kon saa bu ñuy nettali nit ay jaar-jaaram maanaam dañ koy nettali ngir yow maanaam nga man cee nga mën cee fàttaliku. Mm-hmm. waaye tamit man cee waaroo. Mm-hmm. waaye tamit mën cee jube. Mm-hmm. jube ci. waaye jube googu bu amul rek. daanaka nettali bi maanaam du am benn. njëriñ am njëriñ dëgg la benn njëriñ dëgg la. kon loolu mooy solo su nettali ay jaar-jaar. Eh, sëñ Mor Sànqe nag moom. nekk na koo xam ne maanaam daanaka bokk naag ñu baax ñu bari. ndax bokk naag waa Kokki. bokk naag waa Mbakke. bokk naag waa Musoo bi. waaw te ñii moom daanaka maanaam lépp lu baax. Mhm. jaar na ci ñoom. Mhm, mhm. ndax moom. buñ jëlee maanaam kuñ naan siñ deenu Fatim Sànqe. dafa am ñaari doom. dafa am ma Masamba Saafura. am soxna Daaro Sànqe. soxna Daaro Sànqe. waaw. ñoom ñaar ñaar ñoo bokk benn baay. soxna Daaro Sànqe moomu. moo dem moo dem ñangeen am fa ndumbe ndumbe mhm. ñu koy wax ndumbe daanu sànq bàyyam moo tuddoon siñ daanu ñang moom moom moom ndumbe daanu sànq moomu mhm. moo jur soxna astawaalo mhm. waaw way soxna jaara ak siñ bësoo bi ak siñ loolu lu loolu lu wér la mu <laughs> jur soxna astawaalo mu jur soxna jaara ak siñ musoo bi kon moom soxna Asawaalo waaw moo jur soxna jaar ak sëñ Bousso bi waaw soxna Asawaalo maamam maamam direct di mhm. jigéen mhm. sànqe la sant lay ndeysaan lay ndeysaan waaw te mhm. te ñoom xam nga maanaam mag ñi dañ daan xool fi ñuy jëlee fi ñuy jëlee soxna dëgg la comme comme léegi nii ni ni jamono tëddee nii tëddeewu ko woon booba ndax ñun hmm. dañ daan xool surtout doomi soxna yi dëgg la dañ daan xool maanaam fi ñuy def fi ñuy ji seeni doom comme ni ko alxuraan waxee hmm. dañ koo xamoon bu baax dañ ko daan bàyyi xel waaw dañ ko daan bàyyi xel waaw kon soxna daaro sànqe hmm. foofu boo ko toppee ci càllala googu day dem ba ca Sëñ Tuubaa dugg ci waa musóo bi itam wallaay ndeysaan ndax boo tuddee soxna jaara kon jàll nga ci musóo bi day daal di dugg ndax maanaam soxna daaro sànqe doomam soxna ndumbe daaro Ah. moom la mbaam magu sa aw mbaay dëkkoo woon. waaw moom la dëkkoo woon man ngoog. Hmm. kon mi ngi noonu. Hmm. Eh, kon. Hmm. bu dee nag kam bokkal baay nag. muy Masamba Saafura. moo jur ma sànqe maram. ma sànqe maram. ma sànqe moo jur ma sànqe faa jóob. ma sànqe faa jóob moo jur saa kodde ma umma. saa kodde ma umma ma umma. mu jur maanaam siñ deenu ramata. Mhm. mu jur sëñ Mor Sàn mu jur sëñ Mor Sànqe. macha allah. waaw allah. macha allah xam ne kon ñoom. Mhm, nga xam ne. maanaam Masamba Saafura la ak Soxna Daaro Sànqe. ak Soxna Daaro lay ndeysaan lay ndeysaan. boo toppee Masamba Saafura ci la sëñ Mor soqi ko ci la sëñ Mor soqi ko. boo toppee Soxna Daaro Sànqe ci la sëriñ bi. soqi ko ci la Seexul Xadiim soqi ko. macha allah mbokkam la mbokkam la bu yore yore yore. maanaam ay mbokk lañ. lay ndeysaan ñoo bokk lépp lay ndeysaan boo jëlee nag maanaam maanaam suñ deenu Fatick moom ma a wax nga xam ne moom moo leen jur moo jur soxna Daaro Sànqe mm-hmm. moo jur itam Masamba Saafura mm-hmm. soxna Daaro Sànqe Awa Dikke Camara mooy way juróom wu jigéen mm-hmm. Awa Dikke Camara dëgg la Awa Dikke Camara moom soxna Mariama Diop moo ko jur soxna Mariama Diop mook suñ Maxtaar Ndumbe ñoo bokk benn baay Maxtaar Ndumbe ma sañ Samba Ayib moo leen jur ma sañ joon kokki waaw barakallah baarakallah <laughs> su ma nee dafa bokk ak waa Musobe bokk ak waa Mbàkke bokk ak waa Kokki dëgg la dëgg la dëgg la kon moom foofu la ko suñ borom jaarale ndeysaan ci wàllu wayjur wu góor ci ay ci wàllu wayjur wu góor mm-hmm. bu ñëwee ci wayjur mu jigéen nag mm-hmm. moom mi ngi bokk ci waa siin yooyu ci buur siin yooyu noonu mm-hmm. siin ci jaxaay waa jaxaay jaxaay jaxaaw ma ngoog moom foofu la bokk ndeysaan kon moom ci ñii la jaar ci ay wayjur nu mu tudd waajuram di maanaam saakodde ma umma mhm. di di di di di siñ deenu ramata laa wax saakodde ma umma moo jur siñ deenu ramata mu jur mhm. siñ moor siñ deenu ramata kon mooy mhm. waajuram siñ deenu ramata maanaam nee nañ dafa amoon nag kóllëre siñ moor anta sali ndax ñoo bokkoon dëkk ca jolof ndeysaan boo demee maanaam mbakke bëri jolof ak cànq jolof taxut ñu soree lool maanaam ñaari dëkk yi taxul ñu soree lool. Hmm. nag ba nit man koo dox. dëgg la waaye taxul ñu soree xam na xam naa ko yoroon oto di ko daw. Hmm. xam naa ay 15 minutes ba 18 minutes. Hmm. ci yooyu lañ koy natt. mu mbàkkee ci Jolof. Ah, waaw waaw ci sama natt ci Jolof waaw. kon ñoom nag. maanaam ay wëllëre lañu woon. dëgg la ba tax moom sëñ Mor mii mu tuddee ko sëñ Mor Anta Sali. sëñ Mor Anta Sali. waaw sëñ Mor Anta Sali moom. nga xam ne sëñ Mor sànq sëñ Mbàkke Mor Anta Sali lañ ko tuddee. waaw ah, sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke waaw ah, moom moom moom la ko moom la ko. moom la ko way juróom tuddee am na solo. waaw ah, moom nag mi ngi feeñ ci 1890. 1890. waaw 1890. barakallah. Mhm. waaw nga xam ne maanaam moom mag la. Mhm. ah 90 <laughs> kay mag la moom. 90 ah, sëñ baara sëñ baara lay maaseel ci njabootu sëñ mag bi ah ma ngoog <laughs> sëñ baara te it ci sancub Touba it xam naa ne du ko sori waaw mm-hmm. ko waaw mm-hmm. ndax tu eh, eh, kañ lay war a doon 88 88 mm. mm-hmm. kon maanaam mi ngi noonu am na ñu ñu ko ma nettali sax ne ma moom lañ njëkk a tuddee sëñ Mor Anta Sali moo mag ci turandoo yi sëñ Mbàkke waaye nag loolu maanaam ah, dañ ma koo nettali nii rek waaye amaguma ci lu leer xam naa li nga wax xam naa li nga wax jëlee wu ko ci seqa ah, ndax xam nga suñ Mor Anta mag la mhm. bi suñ Mor di feeñ jamono mhm. fekk na itam aw turam aw turam àgg fu ne ah, fekk na suñ Mor Anta Sali sax kay jógee fi lu néew néew néew juróom-ñetti at waaw ma ngoog ndax moom 82 la fi jógee mhm. 1882 moom moom la fi juróom-ñetti at yi waaw kon loolu xam nga booba day kon mm-hmm. loolu moom mat naa seetaat mm-hmm. ndax sëñ Mor Anta Sali ni mu doonee kilifa mm-hmm. ñu toog ba jamono boobu ñu koy door a tuddee eh, kenn loolu moom mën naa nekk nag waaw waaw mën na mën naa nekk nag waaw waaye leen lu nekk comme boroom xam-xam yi lay sa taarix moom kamaakaana waaw dañuy wax ne maanaam sax fànnuk siira mu ëpp ay xilaafaat dëgg la mbooleem fànni xam-xam mbooleem funoon yi xam waaw boo demee ci ñuy jàng jox siira yu dëgg la dëgg la dëgg la dañ la koy wax borom xam la dëgg la waaye nag wuuteeg borom xam-xam yi ruux sala ruux sala waaw moom barakallah mhm. kon moom dëgg la am na solo lañ ko tuddee mhm. mu feeñ jamono mhm. ci 1890 ca cànq jolof ca cànq jolof barakallah waaye juróom woowu sax di di di di maanaam suñ daanu ramata bi muy génn àddina mi ngi fekk suñ tubaab ci yéen ci yéen Jolof. waaw nga xam ne diggante maanaam mille neuf cent maanaam trois. Mhm. mille neuf cent trois naa moom la ñëw ci yéen. Sëñ Tuba. waaw ah, Sëñ Tuba. Mhm. Mhm. Sëñ Tuba. 1903 gànnaar gànnaar la nekkoon gànnaar la nekkoon. waaw 1907. ba 1912 waaw waaw ma ngoog waaw kay waaw la waaw ma ngoog. 7 1907 la ba 1912. waaw ah. ci diggante boobu noonu ci la way juróom way juram. maanaam génn àddina nee nañ nag dafa dénkoon Sëñ Tuba boppam. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ba bi mu génnee àddina suñ mbakki bu ak suñ fallu ñoo ko taxaw baarakallah baarakallah. moom moom nag nee nañ nekkutoon murit waaye tijaan la woon. Mm, ci tariqa tijaani waaw ci la génnee àddina moom. waaye dafa batale woon sëñ Tuubaa boppam. waaw barakallah. xam xam nga mag ñi dañ daan def loolu. ndeysaan lay ndeysaan. waaw mag ñi dañ daan def loolu. lay ndeysaan lay ndeysaan. ngir yaakaar ca barke. am na solo am na solo fa kullu wirdin yuridul murida li mm-hmm. hadratillahi wala yahida sawaun intama ila إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب كلهم قطعا على الصواب قطعا على الصواب la Seexul Xadiim wax ca Masaalikul Jinaan nee na wirdu wu ci waaye mën a wirdu daal baax na ndax yëpp daal ala sawaab yëpp ca yàlla la jëm kon loolu day feeñ ci mag ñi nangulante gi nangulante woon nga xam ne coxor gii nga xam ne moo xew léegi mm-hmm. diw tarixa sàngam la bokk man tarixa sàngam laa bokk maa jaxasoo ak moom mag ñi ñoom dindi woon nañ ko fi. Ah, mooy la maam Alaaji Alaaji Abdul Aziz. radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakaatihi waxoon ba mu dikkee Touba. daal di ne tey de xam naa ne noon yi noon yi danañ mer xam naa ne bu rajo bi waxee ne Alaaji Abdul Aziz ma ngi ci ginnaaw Abdul Xaadir Mbacke. liqaamal mhm. ko Abdul Xaadir jiite ko. Mhm. am na ci ñooñ tey moom duñ yendoo jàmm. duñ yendoo bànneex. Mhm. waaye nag loolu mooy lislaam mooy li nga wax nii ne moom la maam daanu ramata defoon. mooy bokk ci tariqa tijaan yi. waaye may gi yàlla may seexul xadim mu nangul ko ko mhm. ba tax mu dénkoon ko boppam ngir bu fi bàyyi ko moo tax bi fi jógee alxaaji mbàkke bu sa alimul allaama jooju muftil bilad jooju ak seex mohamadul faadal ñoom ñaar ñi ñoo ko taxaw barakallah am na solo lool kon xam nañ sëñ Mor Sànke sëñ Mbàkke Mor Anta Sali lañ ko tuddee 1890 mhm. la gënee àdduna mhm. waaye ca cànqe jolof yi la ganee àdduna ñaari way juróom it xam nañ leen xam naa sëñ Saaliwu dañuy dikk ci li nga xam ne man dama du ma wax doomi soxna waaye dama naan li doomi jullit baaxoo doomi doomi jullit li mu baaxoo mooy bu juddoo liñ ko war a defal liñ ko war a njëkk xamal mooy diineem mm-hmm. léegi nag ci wàllu jàng moom fan la ci jàll jaar ak ndax bi mu jàngee ba noppi dafa jàngale ji wala yan injazat la def ci wàllu xam-xam dafa samp daara jàngale wala ndax taalif na ay téere mm-hmm. bu dee am na mbind ñu mën cee xam waaye lu ko jiit mooy moom fan la tàmbalee ci njàng ak yu demee noonu incha allah awala waaw moom moom bu ñëwee ci wàllum njàngam. Mhm. way juram moo ko dalal alquran. ca jànq sëñ daanu ramata. waaw barakallah. moo ko dalal alquran ca jànq jolof. Mhm. ndax bu feeñee àdduna ci quatre-vingt quatre-vingt-dix. Mhm. da ngay gis ne kon way juram yeggut ak moom daal di génne àddina. 17 mhm, ans rek daanaka. waaw waaw 1907. Mhm. ba ba ba 1912 ci diggante boobu ci la juróom juram génne àddina. kon moom bi way juram di génne àddina tout tànk la. tout tànk lay doon ndeysaan. waaw moo tax dañ ne daf koo dalal rek. Mhm. daal koy jébbal maanaam mbokkam. di sëñ Abdou ku ñuy wax sëñ Abdou jël ca Ngasama. sëñ Abdou Ndujël. Ah, Gasama mooy mooy wayjuru si si ñëliw Gasama moo mucc. ah waaw si yàlliw Gasama waaw ndeysaan. Ah, ak ak sëñ Mudu Gasama. ndeysaan ca gaar bu ndaw. Ah, mooy seen mooy seen wayjur ku maanu la woon nag. ndax nee nañ mas naa bay bay ab toolam ba muy toll ci ci ci ñor. foofu hmm. ci foofu ci boori Dëru Dëru Rahman. Hmm. boo demee see boo demee dëkkam ba ma nga foofu. moom sëñ Abdou Ndujël. waaw. Hmm. ñu bëgg faa fal chef de canton. mu daal di mu daal di gental tool ba. Hmm. ak yëpp daal di daal di tuxu maanaam dem feneen. ne ngir fal ngir bëgg gi ñu ko bëggoon fal chef de campagne. waaw dafa ne du ma liggéeyal ab tubaab mag ñi mag ñi kenn ma liggéeyal ab tubaab la wax. du ma liggéey du ma liggéeyal ñu fal ñu moom. <laughs> waaw waaw moom dañuy jaaral sax moom bu jëree sangu ñu sangu bu jëree da nga li mu doon daw mooy jaxasoog tubaab yi ñuy yàq dara ci diineem ndax xam nga bu ñu la falee léeg-léeg dañ da ngay nekk ci sa daara sax ñu ne la ah. ñu ne la suñ bi dañ laa soxla ومن يشاركهم هنا في عزهم يكن شريكهم غدا في ذلهم la Cheikhul Khadim ah, waaw mu ngoog mooy ku bokk ak ñoom fii seen tedd nga ji jawharu nafis ëllëg luñ ne nga bokk ak ñoom wallaahi wallaahi ëllëg lu leen yàlla di def yaag ñoom a koy bokk wallaahi moo tax ñoom ñoom dañ ko daan daw hmm. ko daan daw bu baax waaw hmm. ah, gis nga sëriñ bi bi ñuy bi hmm. bi ñuy tànn maanaam ñu eh, ñu jiite lislaam gi booba maanaam moom boole woon nañ ko ci ndeysaan moom sëriñ bi. moom sëriñ bi waaye nag. Hmm. maanaam moom Moussa Diaye yee Moussa Diaye. Moussa Diaye Moussa Diaye dëgg la waaw Moussa Diaye mën naa ne sax ñoom ñëpp sax ñoom ñu ci boole woon ñëpp sax. ñu ci bañ dara luñ ci bas a doxal. dëgg la dëgg la kay. waaw ah, ñoom dañ ko daan daw bu baax ku mel ne suñ hmm. kokki njaga isam hmm. yi. maanaam birima birima fat ma cubb loolu la loolu la jotee woon ak moom. ba tax mu gàddaay génn kokki. parce que daf koo daf koo fal. waaye pal ga da caa doxalul dara ngir bañ di jaxasoo genn jaxasoo gi. moo tax mu mujj maanaam maanaam dindi falga. Mhm. ba nar ko caa songu xeex ba mu toxu hmm? maanaam gaa yu baax yi dañ daan daw yooyu. Hmm. loolu yàgg na fi lool. jaxasoog. Euh, jaxa jaxasoog. Hmm, buur yi buur yi àdduna yi ñoom dañ ko daan daw bu baax. waaw loolu moom. ku jàng siira Serigne Touba moom da ci xam lu bare bare. nga xam jël bu Ngasama. waaw moom la ko woy juróom joxoon. moom la ko joxoon. bi mu ko dalalee ci ci alxuraan. caake waaw. Mhm. moo ko jàngal alxuraan nag ba mu mokkal moom. Mhm. bi mu duggee ci loxoom génnaatu fa. Ah. mi ngi ko doon jàngalee ca Mbure. Mbure. waaw Mbure fu mu ne. mi ngi nekk ci bu diggante maanaam xam njurul ak xelkom. Mm, Mbure. Ah. Mhm. ci diggante boobu ba fa la nekk fa la ko jàngalee ba mu mokkal alxuraan. dëgg la. moo ko commencé xam-xam yi tam. moo ko commencé jàngal xam-xam dëgg la. ci biir xam xamaatuma nag keneen ku ko jàngalaat xam-xam. waaye nag xam naa xam xam nettali nañ ma ay nit yoo xam ne dañ daan ñëw ci moom di jàng xam-xam bi muy nekk gaar bu ndaw. moom sëñ Mor Sant waaw barakallah waaye kooku lañ xam ci kooku jàngal xam mm-hmm. moom bi mu jàngee xam-xam ba dafa nu mu dundalee xam-xam yan injaazaat la def ci xam-xam. daa samp daara di jàngale wala ndax bind na. ndax gis nañ bindam. Mm-hmm. waaw moom bi nga xamee ne maanaam mokkal na alxuraan. Mm-hmm. ba jàng xam-xam fekk na way juróom nekku fii. waaye nag nee nañ waaye juróom bindoon na ab leetar boo xamante ni daf ko doon jébbal sëriñ bi. moom sëñ Mor. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. ndeysaan mag moo tax. Mm-hmm. maanaam bi nga xamee ne maanaam am na ñaar fukki at. ak ñett. loolu di 1913. Mhm. fekk sëriñ bi bi mu demee njaareem ba ca déwén sa mhm. moom la ndax sëriñ bi 1912. la dem njaareem la dem njaareem dëgg la ca déwén ca déwén sa di 1913. Mhm. ci la dem nag jébbalu maanaam ci sëriñ bi ci njaareem ndeysaan booleeg leetar boobu nga xam ne moom la moom la fi bay juróom batale woon ndeysaan ah. ndeysaan nee nañu ah. maanaam bi mu demee sëriñ bi bi mu ko xoolee ndax sëriñ bi xam nga bi muy ne njaareem da daan tëju rek daanaka ci ci ci fenêtre bi la ko yër nii nee nañ. Hmm. daan ne waaw kii di doomi daanoo. ndeysaan. barakallah wax na dëgg doomi doomi doomi daanoo. ndeysaan. moom daf ko daan nett li ma dégg ma dégg ko. Hmm. ne ku suñ Tuubaa wax ne wax nga dëgg. Hmm. dootoo feneti. Eh? waaw dootoo waxati lu dul dëgg. moom suñ moor moo ko daan nettali. waaw ndeysaan waaw ci baat bi ma tudd. maanaam ku suñ Tuubaa xas ba xas ba wax la ne la ne la maanaam. kii wax nga dëgg na dëgg xam nga rek mag ñi dootul waxati lu dul dëgg xam nga ñun dañoo xam ni ñu xamee sëriñ bi ñun xamee dégg naa la maa ngi lay a dégg de waaw bi mm-hmm. dañoo xam sëriñ bi mm-hmm. moo tax mu ne ku suñ Tuubaa xas ba wax ne wax nga dëgg mm-hmm. dootoo waxati lu dul dëgg dootoo waxati lu dul dëgg xëy na boo ko bëggee def sax doo ko man moom moom daf ko daan nett li ma déggu moom suñ moom waaw ndeysaan ak ah, comme bi mu ci yeggul hmm, déedéet 1914 hmm. dund na ci 94 94 sax fur la eh, waaw dund na dund na téeméeri at ak ñeent. ci yàlla yàlla taas ci barkeem. Mm-hmm. barakallah. waaw uh-huh. mësta kii kii dem dara daan wax. nga xam ne moom ci la dem jébbalu ci sëñ Tuubaa bi mu noppee ci jàng alxuraan. waaw bi bi ci ba mu fay jébbalu dafa yóbbaale ab kaamilam bu mu bind. bu mu bind ci loxoom. waaw moom la moom la joxaale sëriñ bi. barakallah barakallah. waaw sëriñ bi nag. bi mu ko nangulee njébbal gi ba pare. Mm-hmm. xam nga bi muy ni njëriñ day téye kenn. boobu hmm. fekk na maanaam mu bàyyee téye. Hmm. ndax ni ku ñëw daa am kum lay booleel. Hmm. ci la woo sëñ Fallu ba mu ñëw. mu boole koog moom. mu boole koog sëñ Fallu. mu boole koog sëñ Fallu. ndeysaan baarakallah baarakallah. xam nga boobu mi ngi fekk sëñ Fallu door a sanc ndindi. ndindi waaw ndindi sëñ Fallu waaw ndindi waaw. defe naa bu ma juumut. ci 1913 boobu. wala 12 hmm. ci lañ sanc nit ñi. soriwu ko waaw. Ah. 1913 soriwu ko yooyu. 13 diggante boobu la ci diggante boobu la sanc ndindi. Hmm. sëñ Modou Sow ci la sanc Tindoo di. moom mooy sanc yeneen sëñ Tuubaa joxoon ndigal rek waaw yeneen sëñ Tuubaa ñoom dem Gédé. Hmm. waaw ci diggante boobu la waaw. sëñ Seexu dem Lazare sëñ Seexu sax 1912 la di jóge moom. waaw. xañ na nag maanaam sànc yooyu defe naa moom la Sëñ Tuubaa njëkk a joxe ndigal ci Tuubaa mhm. te Tuubaa nag dëkkoon nañ fi ndax moom nekkoon na fi moom mhm. ndax ba muy ba muy génn sax di dem di dem di dem ca ca di di ca ca woote Tuubaa ba ko Tuubaa bi di jël si ca jeewal mhm. bi muy bi muy dajee moom booba la jugee dem Mbàkke Bari waaw Tuubaa la jugee dem Mbàkke Bari waaw door faa jugee door a dem dëgg la dëgg la dëgg kon Touba ñoom dëkkoon nañ suñu Modou Lamine Diop Dagana mi ngi koy nettali. Hmm, ci waaw nettali ne suñ suñ Mbacke Bousso moo ma ko nettali ci. Hmm. maanaam ni mu ni ni mu woon ak kii kii liggéey liggéey yi. xam naa hmm. dama ci bañ a dugg muy gudd. muy gudd waaw. kon ñoom dëkkoon nañ. Touba waxtu waaw mais boobu day mel ne maanaam digal ay nit nag ñu def ay dëkk ci biir. daa mel ne sama xam-xam àggugut foofa daal. Mhm. waaw sànci yi daal laa ci laa ci laa ci laa ci xam. dëgg la dëgg la man nag sama xam-xam daa yeetu. dëgg la dëgg la noonu la kay booba kay Touba moom dëkk bi moom mooy Touba. waaye ginnaaw bi ci at yi nga wax nii. Mhm. la sëñ Touba bi mu jugee ci géej gi ba dem Njaaréem la jox ndigal sëñ Modou Moustapha. waaw mu sànci Tindodi. Mhm. jox digal si amoon faadal mu sañc ndindi mhm. yooyu sëñ Tuubaa moo joxe digal sañc yooyu noonu mhm. waaw loolu moom <laughs> lu wér la wax dëgg yàlla tay mooy sañc yi jiitu wax dëgg yàlla yi jiitu ci dëkk yi nga xam ne moo wër Tuubaa bu dul lu ko jiitu leen yeneen dëkk yoo xam ne amoon na fi amoon na fi waaw bu dul waaw ndax xam nga bu dee Daaru Salaam moom teeloon na koo jox maam Daaru Salaam moom jiitu woon na loolu jiitu woon na loolu mais ci mel ne ay saam ak yu demee noonu it ñoo jiitu loolu parce que ay dëkki hmm. borom saam lañ yoo xam ne waaw waaw ah, sa borom saam 21 ans la fi jóge woon loolu fekk na boobu mu jël mu gor ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg ah, ah, ma ngoog dëgg la dëgg la kay hmm. hmm, macha allah bismillah waaw ñu jëkkante waxtu yoo xam kon maanaam eh, xam ne kon ne jébalu 1913 la jébalu ci sëñ Touba ci la jébalu ci sëñ Touba sëñ Touba boole ko Cheikh Amadou Fadal waaw bi mu xoolee kaamil bi nag sëñ Touba nee nañ dafa ubbi kaamil bi xool ko ndax xam nga Sëriñ Tuubaa moom sax boo ko kaamil rek la daan nangu moom. wallaay ndeysaan waaw loxoom yi day alxuraan rek la ci daan waaw. Hmm. léegi nag ci la jox Sëriñ Fallu ndigal ne ko nag bu mu def dara lu jàngale alxuraan. ndeysaan loolu Sëriñ Tuubaa ko wax. moo ko booleeg Sëriñ Fallu ne ko bu mu bu def lu dul jàngale alxuraan. musta bay nag musta dem ci ay tool. kuréel Sëriñ Fallu musu ko yóbbu ci ay tool. waaw mosut a nekk jëwriñu tool mosu koo nekk. ndeysaan ndax xam nga li may wax ñoom dañoo xam Sëñ Tuubaa. da lay di toll itam kàddu googu xam naa ne moom la doon sàmm. moom lay sàmm ci digg ci sama ci sama jàngat. Oh, dit moo am moo am ah, sax. moo am loolu moo am. moo sax ah, parce que musu musu koo yóbbu ciy tool. dëgg la moo am daan na bayal boppam nag. moom Sëñ Mor. waaw ah. waaw ndeysaan. waaw mais mais mais Sëñ Fallu moom musu koo yóbbu. ci tool musu koo koo defloo musu koo koo defloo. dëgg la ndeysaan waaw ndeysaan moo tax Sëñ Tuubaa moo ko moo ko jox ndigal ne ko bu mu métier woo dara lu dul jàngale alxuraan. bu mu métier woo lu dul jàngale alxuraan walaay ndeysaan. moom it bi bi ko bi ko Sëñ Tuubaa dugalee ci loxoy Sëñ Fallu. maanaam hmm. da koo xoolee Sëñ Tuubaa rek. ndeysaan nekkatul di yitte woon naan day dem njaareem di fa fekk Sëriñ Tuubaa ci fi defaat wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan xam nga 1913 ba ba ba 27 xam nga xaw naa ji ab diir la mhm. waaye nag mësta delluwaat njaareem mhm. di seeti Sëriñ Tuubaa dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ah, comme comme maanaam da koo jox ndigal dafa doyloo li ko ah. sëñ bi jox rek waaw ah, mu yem ca wallaay ndeysaan mu yem ca da koo doyloo rek wallaay ndeysaan nga xam ne maanaam bi bi bi bi bi mu ñëwee Tuubaa Sëriñ Fallu daf ko yóbbu mhm. maanaam euh, ndi fi fii ndindi. ndindi ndindi waaw. Mhm. parce que mhm. Sëñ Tuubaa moo ko moo ko wax moo ko wax Sëñ Fallu. Ah. waaw na dem Tuubaa te bu mu fa def lu dul jàngale parce que gis na kaamil bi mu bind. lay ndeysaan lay ndeysaan. léegi nag ci la duggee ci loxoy Sëñ Fallu nag yor daara ja. Mhm. nee daaraam jooju. bokk na ci daara yi nga xamante ne nii maanaam ñu jiitu ca Touba. daara yi jiitu ci Touba. ci la bokk. waaw ah, ci la bokk. dëgg la. Mhm. moo tax am na kilifa yu bari yoo xam ne. Mhm. ci moom lañ jàngee nañ fa ci moom lañ jàngee. Mhm. moom sëñ Moor. ndax maanaam jëloo ko sëñ Fallu dox dox ñaari doom yu mag yi. muy maanaam sëñ sëñ Mourou Moustapha Falilou. sëñ Mourou Bousso Diagne. Uh-huh. xam nga moom mi ngi feeñ 21. 1921 waaw. xam nga mag la moom. dëgg la mag la. waaw. Tuubaa itam moo ko dalal. dëgg la. moo joxe ndigal tam ñu yóbbu ko foofa ci siñ Mor. ci sëñ moom sëñ Morul. loolu loolu noonu ab sëtam moo ma ko nettali. Mm-hmm, mm-hmm. soxna Awa Bousso. Mm-hmm. moom la ko sëñ Fallu booleeloon moom sëñ Modou. ñu yóbbu ko njaareem ci sëñ Touba. Ah, maa ma ko yóbbu ci sëñ bi. waaw bi mu demee nee na ki ma ko doon nettali nee na sëñ ñetti yoon ñetti yoon la ko wax. baa siin miim. ci ñetteelu yoon bi la koy door a man sëñ ndeysaan Sëñ Tuubaa ñetti yoon la ko wax baa seen miim ci ñetteelu yoon ci yoon ba la koy door a mën waaw mu ne nag nañ ko yóbbu ci ca ca ndindi ca sëñ Mor Sànq nañ koy yóbbu sëñ Mor Sànq ndeysaan ndeysaan ndigal loolu nee nañ ci sëñ Tuubaa li nga xam ne sëñ Tuubaa joxe ndigal sëñ Modou Moustapha Fall lu ñu ah. jox ko sëñ Mor Santa mu jàngal ko alxuraan waaw ah, ah, moo tax it barke boobu xam nga sëñ Tuubaa moom surtout bi muy ne njëriñam dëgg la lu mu lu mu tàmbali rek day am barke ndeysaan wallaay ndeysaan surtout bi muy ne njëriñam sax moo ci raw baarakallah fekk boo boo jamonoy fayiku la waaw ma ngoo <laughs> jamonoy fayiku la <laughs> waaw moo tax moom <laughs> eh, ndeysaan am na ñu ne juróom-ñaari at la fa def waaye bind na fa nag ñetti kaamil moom sëñ Modou waaw bind na fa oh, ñaari kaamil ñaari oh, kaamil góor yaay oh, góor yaay macha allah xam nga ginnaaw bi it ci la dugg ci loxoy sëñ Modou Moustapha waaw hmm. bindal na ko itam ay kaamil moom sëñ moom sëñ Modou Moustapha hmm. waaye ci daara jëm doon jàngee moom mokkal na fa ba bind fa ñaari kaamil waaw ñu door koo jébal sëñ Modou Moustapha waaw am na solo am na solo macha allah hmm. sëñ sëñ Mouhamadou Lamine Baara itam Falilu sëñ Baara Falilu sëñ Baara Falilu ah ndeysaan moom it maanaam moom la ko sëñ lu joxoon ndeysaan mu jàngal ko am toll xeemi maa xalaq daa fukki fukki xisib ah. doo am fa fukki isin waaw bi sëñ Fallu jugee Màkka ba sëñ sëñ Baara. di wa seet moom ci làmmiñu Alaaji Baara laa ko <laughs> ngay wax nii. waaw man ci làmmiñu Alaaji Baara laa ko déggee mu nettali. <laughs> ci la ko jëlaalee xam nga. ndeysaan boobu mi ngi ci daara kay def ne sax sëñ Fallu bi mu jugee Màkka 1928. Mm-hmm. Mm-hmm. bi mu jugee Màkka ñu di ko ganale sëñ Baara ñëw fa. Mm-hmm. fekk boobu maa ngi doon jàng ci maa ngi doon jàng ci daal sëñ Mor Sànq. waaw ah. bi sëñ Baara ñëwee ci ngan gi la sëñ Fallu ne sëñ Baara yo jëlee sa doom yóbbaale sa doom a ngi noonu. waaw. <laughs> loolu. maa ngi dégg ci laam yàlla bari yàlla yàlla dolli ko leer ak yërmandi. kon moom loolu moo ko fa jëlee. Mm-hmm. waaye moom it jàng na fa ba am fukki hisib xam nga xam nga nit ki boo ko jàngalee ba mu am fukki hisib xam nga xam nga xam eh, am am njàngale dëgg li gën a jafe ci alxuraan yaa ko ko waaw mi ngi tàmbalee ci fi muy jàngee ijji mm-hmm. ba fi muy amee juróomi isib ba fi dëgg la lii moo gën a jafe ci njàng dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la am na waaye xale bi bu xasee ba ubbiku nii xam nga yonent bi alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. bi ñuy wàcce si yoom alxuraan mm-hmm. maanaam eh, juróom benni ay njëkk yi son sonn na ca lool la ilaha illallah waaye bi mu demee ba ci mujj gi saaru maanaam maanaam suuratu tawba. Mhm. wàcc na ci moom. Mhm. te te saxaaba yi yëguñ ñu alxuraan jaa ngi wàcc. wallay ndeysaan wallay ndeysaan waaye nag maanaam eh, eh, eh, aaye yee. Mhm. juróom-benn aaye iqra yee moom. keroog bi muy wàcc moom. dañ na ci lool ña waaw ña ña ne woon ci. loolu <laughs> ñëpp ya soxna soxna soxna Sayyidatuna Khadija. dëgg la kay liggéey na ci sax moom moom moom moom lu am solo. barakallah sëñ Saliou am na solo lool xam naa yéen a ngi topp seen émission keppaaru mag ñi di xewee fii ci seen télé Rewmi TV. Euh, canal 40 TNT ci lañ koy topp waaye man koo topp ci réew mi FM 97.5 tey ñuy waxtaanee Serigne Mor Sànqe mu Serigne Daaru Ramata. Serigne Mor Sànqe moomu nga xam ne moom la Serigne Touba féetali woon ak Cheikh Ahmadou Fadal ne ko woon bu mu def lu dul jàngale alxuraan. Serigne Mor Sànqe moom moom la ñuy waxtaanee Serigne Saliou euh, am na solo lool ñaari borom xam-xam yi buñ ne ci moom lañ jàggee rek doy na sëkk. Mhm. Cheikh Mouhamadul Moustapha Falilou ak Cheikh Mouhamadul Lamine Baara Falilou immeuble bii ñuy waxtaanee Serigne Mor Sànqe Alhaaji Baara Falilou lañ ko tuddee. immeuble bii ñuy waxtaani sëñ Mor Sànq kon sëñ daara alaaji baara la ñuy waxtaani barakallah <laughs> ah. yàlla yàlla fay ko di noonu la ñuy ziyaari alhaaji mbañik Jóob ah, di ko ñaanal baax baax sama borom sàmm ko sëñ saa bi xam naa dañu njëkkanteeg waxtu wi rek euh, sëñ Mor Sànq mm. alaaqaat yi nga xam ne amoon na ko kilifa diine yi mm-hmm. xam ndax comme mag ñi ñoom dañoo baaxoon te dañoo mënoon a toppatoo ak bokk ah. te foofu lu baax nekk yi daw ñu ko xeeb maanaam ñu ñu dikk rek ci alaaqaat yi nga xam ne amoon na ko njëkkanteeg waxtu incha allahu taala. waaw xam nga eh, eh, ku mel ne ku mel ne soxna Abi. Mhm. moom suñ fàll moom suñ fàll soxna Abi waaw. Mhm. xam nga mag la moom. waaw waaw moom it moom it waaw ma ngoog. Mhm. suñ suñ moor moo ko jàngal ba mu mokkal alquran. seetal loolu ah. waaw. ku mel ni ku mel ne mook mook mook soxna Mayum suñ Touba ñoo fa bokkoon nekk ca Daara ja. soxna Mayum na. waaw soxra. waaw ah soxna man mu ne jàng na ci Sëñ Mor. waaw waaw Sëñ Fallu leen fa indi woon ñoom. ndeysaan waaw ñoo fa bokkoon ah, mais soxna may nag damaa xamut fa la àggaleem déet waaye soxna abi mii moom fa la xam nga soxna abi kéemtaan da caa feeñoon ndax mm-hmm. moom mm-hmm. ndax moom soxna fat soxna fat Cerno mm-hmm. dafa naa mooy waajuram fekk jum ma ci tur bi maam waajuram daal doomi maam Cerno la waaw daan def doomu jum am mu dellu Sëñ Fallu daat koy eh, daat eh, eh, wax sëriñ bi mhm. sëriñ bi ne ko indil ma ko fii ci njaareem mhm. ñëwee sëñ sëñ Tuubaa daan ko soqloo moom soxna si waaw séetal boole kook woy juru jigéenu soxna may moomu ci ñi mu ko boolee loon la bokk ah. waaw soxna sa silla waaw soxna fat silla waaw mhm. léegi maanaam bi nga xamee ne maanaam nag yëg na mbirum jigéen foofee ba suñ borom defal ko fa jàmm sëñ Tuubaa moo joxe ndigal ñu ñu tuddee ko maanaam soxna Xafsatu Xafsatu. Xafsatu waaw. Mm-hmm. mooy doomi Seydina Omar Ibnul Xattaab. ah Xafsa. Xafsa <laughs> Xafsa bintu Omar Seydina Xafsa mi yonent bi alayhi ah, salaatu wa salaam. dëkk woon <laughs> <laughs> soxna si yonent bi alayhi salaatu wa salaam. soxna Abi moom lañ ko tuddee. Ah, mais Abi ji lu koy indi. waaw loolu nag moom laa xamagul. turi wolof. waaw. c'est tout maanaam daal sëñ bi nit ñi réeré lee tur. waaye nag sëñ bi xafsa bi ah, xafsa. xafsa mu dem ba egg ci abi. waaw man maa ngi jàppoon ne Habiba sax la tudd. Sëñ Tuubaa nag daf caa tegal ne ko dana dund te dana barkeel. dana dund dana barkeel. waaw baarakallah baarakallah. nekk ba loolu baatin la moom macha allah. macha allah am Sëñ Tuubaa dafa yéeme. déedéet day daar day daar kon moom ci njëkkanteeg waxtu wi. Mm-hmm. ñoom ñooñu jot nañoo jaar ca daara am na ñeneen yi ñu fa jaar. bari na ndeysaan bari na waaye nag bu ñëwee ci ñi mu amaloon relation moom. Mm-hmm. xam naa ku mel ne Sëñ Aafe Ñang sëriñ Afia Ahmadou Niang. waaw moom jaxasoo woon nañu lool moom. ndax ndeysaan ndeysaan. suñ fallu def mooy wayjur suñ mooy wayjur suñ Mourou Mamoun. Mm-hmm, ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax suñ suñ suñ fallu daf leen a boole woon ñoom ñaar. ndeysaan nit sax nettali na ma ne ma. ñoom. suñ fallu daf leen waxoon ne leen seen ñaari kër yi àjjana yi ñoo jàkkaarloo nii. moo ne seen ñaari kër yi Touba yee jàkkaarloo. waaw waaw ñoo jàkkaarloo am na am na ku ma wax loolu. <laughs> seetal la ah? waaw ah, waaye taarix moom comme dañuy nettali. déet lay sa taarix kama ah, kan. waaw <laughs> waaye loolu moom nettali nañ ma ko. ndeysaan waaye daal seen ñaari kër yi jàkkaarloo nii buntu kër goo taxaw da ngay seen biir kër ga jëlee. la ilaha illallah. moom nag moom ci yoon nañ lool daaf da suñ mor daan dem ci këram suñ affaire di dem. di ko fekk si ci di ko fekk si ci kër gi. Mm-hmm, mm-hmm. ndax ginnaaw gi bi kii la leen suñ falu daggal seen kër yooyu. Mm-hmm, ñu jàkkaarloo moo tax moom amoon na moom relation lool ba ba sax maanaam ab taawam bu jigéen siñ mut ñang moo ko yoroon taawub siñ siñ mut ñang jullit waaw du du moomu waaw bokkute siñ mut waaw siñ mut ñang taawub siñ aafi taawub siñ aafi ñang ah, ndeysaan moo mooy way juru mooy way juru siñ aafi ñang mii waxtaan ci jumaa ah siñ aafi ahmadou siñ aafi ahmadou waaw xam naa li waaw xam naa li léegi si si siñ fallu taawub siñ mor bu mm. jigéen moom la ko joxoon moom la ko joxoon ndeysaan waaw ndeysaan kon moom moom amoon naa amoon naa moom relation lool lool moom macha hmm, allah ku mel ne sëñ Massamba Mbacke. Hmm, sëñ Massamba Mbacke waaw. ndeysaan moom it amoon nañu relation lool moom. Ah, ndeysaan. Hmm. ba sax Serigne Moustapha Massamba. yal na ko suñu borom. doole leer ak leer. jaar na ci loxoy sëñ Mor. ah sëñ Mor jàngal jàngal na ko. waaw ah, ba ci xalifu bi fi nekk nii. ah ndeysaan sëñ Maam Mor sëñ Maam Mor. ah ndeysaan. waaw ñoom dañoo amoon maanaam relation lool lool. ndeysaan ndax nit nettali na ma ne ma. maanaam seen ñaari kër yi. ca jamono yooyu dañ daan dañ daan séenante. <laughs> ah jaadu na sax ñoo bokk kokki ah, <laughs> di. ñoo bokk dëkk kokki di ñoo bokk dëkk kokki di. <laughs> ñoo bokk dëkk kokki di ñoo bokk dëkk kokki ah, loolu jaadu na sax di. ndax li daal léegi soxna Mariama Diop. ma lay desaan mi ah, ak Mor Khoudia Kumba. mi goog waaw waaw waaw. waaw parce que Mor Khoudia Kumba moo juru maanaam mi goog lay desaan. way juru suñ Masamba. mi goog lay desaan Mor Khoudia Kumba moo ko lay desaan lay desaan moom moom. Mm-hmm. maanaam eh, moom suñ mbokk la loolu. waaw mm-hmm, mm-hmm, kon suñ Mor. ku mel ni itam. suñ Mor Roqaya Bousso. suñ Mor Roqaya Bousso waaw ndeysaan ah. waaw ndeysaan. Mhm. moom it maanaam amoon nañu relation lool lool. ndeysaan ndeysaan. Mhm. ndax moom maanaam dañuy wax ne maanaam bi nga xamee ne maanaam loolu moom damaa gis ñu bind ko ci xadaaiqul fadail fii siirati Cheikh Mouhamadul Fadil. waaw. boobu boobu maanaam maanaam. waa kër Sëriñ Fallou yi génne woon ñu wax ne maanaam bi sëriñ bi ñibbee àjjana. Mhm. bañ indi ko maanaam ci Touba. booba nga xam ne ba barab bi maanaam kii ki yëngu. ab la woon waaw ba baraag la woon. jamonoy baraag ba waaw suñu fóolu daf daan def maanaam bés bu set daf daan ñëw di fa wàcc kaamil. Hmm. bés bu set da daan def ko semaine. moom suñu fàll. waaw daal koy jébbal suñu Mor Sàmb. waaw. nga ne kaamil boobu moo ko mujj yor di ko doxal moom. nga xam ne bi ñuy jàng barabu sëriñ bi suñ Fall loo ko tàmbalee. waaw suñ Mor Sànq di ko defal. waaw <coughs> na ko ab diir. Hmm. ginnaaw bi. Hmm. la ko suñ Fallu jëlaat ndax xam nga moom moom da dul gone. Mm-hmm. sëñ Mor sëñ Fallou benn at la ko magee. <laughs> ci ci ñu ne 89 la am na ñu ne 86 la nag sëñ Fallou. Ah. xam nga am na ñu ne 86 la waaye ñu ne 89 la bu boobaa benn at la koy magee tey mm. maanaam boo demee ci maanaam euh, sëñ Modou Lamine Diop Dagana. Mm. moom 89 yi lay indi. 89 yi waaw. Mm. moom moom moom loolu lay indi moom boo xoolee date yi mu lay jox. da ngay xam nga taarix mooy doxee noonu. waaw taarix mooy doxee noonu ak jamono boobu. Mm-hmm. maanaam bi mi ngi fekk sëriñ bi doon wër suufu Touba. Mhm. wax nañu ne sax. waaw euh, ah, ma ngoog même sëñ Mamadou Moustapha bi muy gën a àdduna. Mhm. fekkoon na ko moom gis na ba pàkk bi waaye man ba tàmbali faa def ay xalwatoom. Mhm. waaye taxutoon mu mu sanc ko. maanaam taxutoon mu sanc ko mooy que ne ma nga nekkoon ci di defaraat ak defar kër geeg yu demee noonu làkk kër geeg yu demee noonu ba wax nañ ne sëñ Massamba Fati. la moom rek la wanoon barab bi. ne ko daal sañ nga ma fee fekk waxtu wu ci ne. ba sëñ Modou Moussa gane àdduna sëñ Massamba moom moo ko wax si sañ sëñ Tuubaa. sëñ Tuubaa bindu kayit jox ko kayit wa laataa muy ñëw fekk na waxtu tudd wa weesu na ndax dañoo dem ba yor-yor bi bëgg a weesu. borom Daaru Muxti daal ni borom saam yaa fi ne de yàgg sëñ bee bokk lépp. te loo def sëñ bi du ko dindi. te xam nga ne sëñ bi léppam yonent bi alayhi salaatu wa salaam tudd ko ci la ko borom saam tudd tuddee ko Muhammad. Hmm. bañ demee ba takkusaan di jot la sëñ Massamba Faty door a indi kay doo muy Mouhamadul Moustapha <laughs> noonu la demee kon daanaka loolu moom daanaka ay diggante 88 86 loolu moom taarix taarix wax na lii taarix wax na lee hmm. waaye ala kulli hmm. daal ñoo sanc Tuubaa ñoo maase waaw waaw <laughs> ala kulli xaal mooy li gën a wóor xam xam naa li ñu rawante bëriwul ah, ñoom ñaar xam naa ñu jëkkanteeg waxtu wi rek ñu daal di daaneel foofu te dikkee ci kañ la gan kañ la génn àdduna waaw moom xam naa mi ngi génn àddina ci 1914. 1994 1994. 94. ci la génn gudd na fan lool macha allah. waaw ah, du ñu téeméeri at ak ñeent ndeysaan mi ngi nekk ci bisub ajjuma. bisub ajjuma. waaw. Ah. Mhm, mhm. mi ngi nekk ci weeru rabi'i saani muy weer wi ñu bëgg a dugg nii. ndeysaan. muy rakki gàmm. rakki day ndeysaan. waaw ci bisub ajjuma. Mhm. ci 1994. 1994 macha allah. waaw macha allah. moom nag. Mhm. maanaam am na ñu ne sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Modou Bousso Dieng moo ko taxaw. Mhm. am na ñu ne taxawu kat waaye daa joxe ndigal la. daa joxe ndigal ñu taxaw waaw. ñaar yooyu yëpp dégg naa ko ci. kon moom. ñu ngi ko denc itam ci armeel yi Touba yi. yu njëkk yu yu mag yi. foofu fa lañ ko denc. Mhm, mhm. kon moom. Mhm. loolu mooy xistaam xam naa nag bàyyi nañ ci lu baree baree bari ndax. it moom kay waxtu yee ñu ko dul may. Ah, moom waxtu yee ñu ko mayul rek moo ko dul maye. ay wax dëgg yàlla moom kan moo ko njëkk a wuutu ak lan moo tax ñu di ko fàttaliku kan lañ koy fàttaliku. waaw moom. xulafa sama wayjur di Sëriñ Ousmane Sànqe. mooy ab taawam bu góor. ndeysaan. moom moom moo ko njëkk a wuutu. ndeysaan. ba 2002. ndeysaan. moom moo ko wuutu 1994. ba 2002. Mhm. ba 2002 juróom-ñetti at. waaw. Mhm. rakkam jël Serigne Cheikh Sànqe. Mhm. Serigne Ousmane moomu mi ngi ko tuddee woon maanaam eh, eh, eh, maamam. Mm, maam Ousmane. waaw Serigne Deenu Ramata moom la ko tuddee. Mm, Serigne Deenu Ramata. waaw. moom Ousmane la tudd. waaw ah, Ousmane la tudd. dañ mhm. daan def maanaam ku moom cànq ñu lay wax deenu. ñu lay wax sij deenu. waaw xam naa li nga wax xam naa li nga wax. waaye deenu foo ko déggee rek daanaka maanaam mooy dafa moomoon cànq. dafa moomoon cànq. ndeysaan ndeysaan. Mhm. waaye Ousmane mooy tudd. waaw lay ndeysaan lay ndeysaan lay kon moom la ko tuddee Sëñ seex mu tuddee ko Sëriñ bi. Cheikhul Khadim. waaw lay ndeysaan. moom it. moo mhm. moo ko wutu ci 2002. ba 2011. mu mu daal di bàyyi si ki mu tuddee Sëñ Fallu moo fi nekk ba fii may wax ak nii. ñu ah, ko ñaanal maanaam fan wu gudd. ak yàlla yàlla yàggal yàlla may ko wér yàlla yàlla. waaw amiin moo fi nekk ba fii. Mm-hmm. léegi nag bis bi nag moom. Mm-hmm. bis bi nga xamante ni nii maanaam euh, euh, euh, moom lañ koy defal. Mm-hmm. maanaam dañ ko ci fàttaliku. di ko ci ñaanal. di ñaanal itam ak njabootam. ndax la ma waxoon ca ginnaaw rek fàttaliku gi. maanaam euh, la ca alxuraan wax. Mhm. loolu maanaam mooy jubluwaay bi. dëgg la dëgg la mhm. ginnaaw bi mbokk yi dajee maanaam di leen ñaanal. Mhm. kon fàttaliku gi loolu mooy jubluwaay bi. ren nag. maanaam mi ngi tolloog alxames. 3 octobre. muy alxames bi jëm. incha allahu taala. ma ngay amee itam foofee ca marché Dobine ba. ca Kër Baylaat. ñu gën koo xam ci marché. soxna Seynabou Ndiaye. Ah, moom la suñu Muntaxa joxe ndigal ñu tuddee ko marché Dobine la tuddoon suñu Muntaxa moo joxe ndigal ñu tuddee ko maam Seynabou Ndiaye maam Seynabou Ndiaye waaye mooy jur Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall <laughs> barakallah ca wetu kër Cheikh Amar ga barakallah barakallah foofee fa lay amee mhm, barakallah kon xam naa mën nañoo taxawlu foofu rek am na solo am na solo sëñ Saliou bañ a lekk waxtu bi am na solo xam naa waxtu wi léeg-léeg moo ñuy xoj a xoj a xoj ba nga xam ne li ñuy bëgg lépp lépp lépp duñ ko man a génne li dul ci nag bi lépp da dul xajandoowul ci ci ndax ndax fi ne bari na ay kilifa yoo xamante ne ni mm-hmm. jàngal na leen bari na mm-hmm. mm-hmm. amoon na ak ñoom relation bari itam yoo xam ne daf ko daan wax moom ci xikam mi ci ay xikam moom bëñam rek bu masaan a wadd nii boo ko sànnee da foo foo foo foo foo ko sànni danga nga dem jëli ji ko parce que danaan la bëñ bu naan bëñ bu daan wax ak Sëñ Tuubaa kenn du ko sànni la ilaha illallah xanaa nga mosal ñu ci ñett <laughs> ñett rek waaw waaw moom daf daan wax loolu. <laughs> Mhm. <laughs> léeg-léeg it maanaam buñ buñ ko masaan a toggal loo xamante ni nii maanaam yelloo wut ak bëgg-bëggam. Mhm. daf daan wax yéen ñime ngeen lu ne. Mhm. ndax ku daan wax ak Sëñ Tuubaa ngeen koy tegal ay ay. laaw caaxaan yi da da ko daan tooñee nag. lay ndeysaan lay ndeysaan daf leen ko daan tooñee lay ndeysaan mhm. moo tax maanaam eh, eh, eh, doomi Serigne Touba yi mhm. fonkoon nañ ko lool lay ndeysaan ñoom ñëpp lay ndeysaan wala boobu ci bari teg nañ seen tànk ci kër lay ndeysaan lay ndeysaan ku mel ne Serigne Abdou Lahad moom ak Serigne Saliou mhm. ñoom moom ñoo ci gën a kii moom lay ndeysaan waaw daaray kaamil itam bokkoon na ci ñi koy jiite ci jamonoom fii ñuy wax daari kaamil ci jumaa ji waaw daari kaamil jumaa ji waaw bokk na ci maanaam ñu ko ji loola rek maa defee ne ma nga sosoo ca kaamil boobu ko suñ fallu lan lay ndeysaan ba ko si ba jébaloon suñ tubaa waaw lan lay ndeysaan waaw kon xam naa moom mën nañoo taxaw foofu rek am na solo am na solo am léeg-léeg nga dégg ñu ne daari kaamil ñu bari bari bari bari léeg-léeg ñu am ak lu leen lënt ci dafa am barab bu ñuy wax daari kaamil muy fi ñu denc ci sëñ Abdou foofu mooy bibliothèque bi mooy maktaba Cheikhul Khadim am na nag bu naan daaray kaamil ji ci jumaa ji waaw mooy barabu sëñ bu mag bi daaray kaamil ji mu jàkkaarloo mooy fi nga xam ne fi lañ saxal kaamilub suba ak góob bëccëg wax daaray kaamil mhm. fi mu ñu bëree bëree bëree bëri loolu yi dañ ci <laughs> am lënt bu ñu ne daaray kaamil ñoom jàpp nañ ne maktaba Cheikhul Khadim bi mhm. mooy bi sëñ Amdi Moustapha Diatara jiite foofu mooy daaray kaamil dëgg la foofu daa nañ ko wax daaray kaamil waaye fi ñuy wax daari kaamil ji ci jumaa ji mm-hmm. mooy fi nga xam ne kaamil ba sëñ Tuubaa ba sëñ Fàllu commencé woon mm-hmm. sant ko sëñ Mor Sànq mm-hmm. ba fi may waxee yow nii kilifa yi di ko def nga xam ne bu ñu xëyee danañ jàng fajar danañ jàng bu bëccëgee danañ jàng bu tàkkusaan yi danañ jàng bu guddee timis danañ jàng mm-hmm. daari kaamil joojee ñu saxal juróomi kaamil yi juróomi waxtu yi mm-hmm. mooy bi jàkkaarloog barabu Cheikhul Khadim waaw mooy bi jàkkaarloog barabu Cheikhul Khadim sëñ Abdou Diop imam bokk ah, wax barakallah barakallah am na solo <laughs> sëñ Saliou xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek am na solo lool ki ñu doon fàttaliku mooy sëriñ Mor Sànqe mhm. sëriñ Mor Sànqe di kenn ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ tubaa lay wax mhm. ndax sëriñ Touba ko jébbal si Amadou Fadal mhm. euh, sant koy it ko bu métier woo lu dul jàngale alxuraan ñii nga fi tudd yi ne ñoom la jàngale ñoom ñëpp ay boroomi xam-xam lañ kuñ ci kuñ ci waxtaane rek ak dundam da nga gis ne réalisé na ci xam-xam loo xamante ni maanaam wa yoon wiñ ko wan leer na yàlla na yàlla fayal ñu ko te suñu borom taas ñu ci barkeem. xam naa mi ngi génn àdduna nga ne mi ngi génne àdduna 1890. génn àdduna 1994. nga xam ne kon dund na téeméeri at ak ñeent. Mm-hmm. yàlla fayal ñu ko. pas-pas ak bëgg-bëgg gi mu amoon ci sëñ Tuubaa mm-hmm. moo tax wax ja sëñ Tuubaa waxoon ak moom. Mm-hmm. tax na moom fu mu toll moom loola loola mooy ar moom. Ah, nga xam ne egg na ci bu bañam waddee. Hmm. danaan bëñ bu daan wax ak sëñ tubaa kenn du ko sànni. kenn du ko sànni egg na ci ne ku sëñ tubaa wax ne wax nga dëgg. Hmm. noppi nga ngaa waxati du dul dëgg. kon loolu loolu ay maanaam ay ay maanaam. ay yëg yëg asidqu fi mahabbati cheikh abad hmm. ya sëñ Tuubaa waxoon ci murid sadiq ah, alaama yooyu maanaam mandarga yooyu la ñuy gis ci moom bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa moo tax moom cëram bu mas a jëflanteeg sëñ tubaa mhm. moom cër booba da koy waggar ngir gis gi masoon a gis sëñ tubaa ak la masoon a wax ak sëñ tubaa mhm. yàlla na yàlla fayal ñu ko te suñu borom taas ñu ci barkeem xalifa bi nga xam ne moo fi nekk muy Cheikh Mouhamadou Fadel sànq yi yàlla na mhm. yàlla sàmm ko bis yi moom mënta ñàkk fàttaliku gi mënta ñàkk li may wax toujours mooy ki dikkoon ci sëñ Saliou ne ko bis yi di dafa bari te dañoo gis ne bis yëpp ndax doo waxtaan ak jaboot gi ñu def ko benn bis muy bisu màggal tubaa la ko sëñ tontu woon laay wax waxtu ci ne daf ne ko luñ ciy def mu ne ko bu ñu xëyee danañ jàng alxuraan mhm. su bëccëg yi danañ bernde mhm. su ginnaaw tàkkusaan danañ waxtaan ak bokk mhm. sëñ Saliou def ne ko loolu mën naa am bis bu ne loolu bu ne mën naa am yàlla yàlla fayal ñu loolu rek nag xam naa damay tàggoo ci benn minute rek insha ah. allahu su ko defee ñu daal di euh, tëj jotaay bi incha allahu taala ndax waaw xanaa liñ fi ñu fi ñuy tëjee rek mooy di la di la sant bu baax yow sëñ Baara jërë di ñaanal di leen ñaanal suñu borom mu taxawu leen bu baax. amiin amiin taxawu it kër gi. amiin gën a dëgëral borom kër gi. Mm-hmm, mm-hmm. ba kër gi maanaam fi fi mu ko bëgg a yóbbu mu yóbbu ko fa. amiin amiin amiin macha allah di nuyu itam personnel bi nga xamante ni maanaam ñoom. Mm-hmm. ñoo fexe ba maanaam ñu mën a toog fii nii. di wax ay nit ay nit man ñoo dégg. ñu ngi leen di jaajëfal baax suñu techniciens yi. beneen bi nag mooy ah, maanaam bis ba moom. la 3 la. incha allah octobre dëppoo alxames. incha allah taala ci 2024. incha allah eh, moom nag yooyu nga baax lañ fay def mooy bu ñu xëyee dinañ jàng alxuraan. Hmm. maanaam bu bëccëgee maanaam dinañ joxe dinañ joxe maanaam ay bernde. Hmm. bu ngoonee dinañ waxtaanee ak mbokk. loolu rek mooy mooy mooy lislaam. loolu rek mooy lislaam yii rek mooy lislaam am na itam daañu ko fa waxtaanee muy assalaatu. Hmm. ak ay ak ay muy julli. ak maanaam ay ay yëcc aju. ak yëcc aju macha ah, allah assalaa wa maa yataallaq. wa maa yataallaqu biha. waaw ah, danañ ko fa waxtaanee incha allah. am na solo jërëjëf amit barke Seexul Xadiim kon mën nañoo taxaw foofu rek. baarakallah am na solo Serigne Salif Sànqe euh, doon waxtaane Serigne Mor Sànqe di kenn di jàmbaari Serigne Touba yi ma ko waxee léegi seen émission keppaaru mag ñi tey kii la leen indiloon ci mag ñi nga xam ne ñoom la yàlla baaxal waaye ñoom ñoo liggéeyal lislaam liggéey bu rëy bi nga xam ne mën nañ koo wane fu ne ba ku ne mën cee jëriñoo seen émission keppaaru mag ñi seen mbokk sëñ Baara Bàkki ngeen ci àndaloon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 بأنها ساعة ميل في المقالات كانت موائد قرقاب لا مثلا وما موائدها خير القيانات ليست تريد وإلا قد